tàmbalee Medina Baye ñëw seet si Serigne Maye Ibrahima ñas suñ fi jógee danañu dem Kaneen danañu dem Léona Niassène danañu dem Casaville danañu dem Touba Ndorong loolu nag pour li nga xam ne jàppoon nañ ne war nañ koo def pour que jafe-jafe bañ a am ci mbirum ndox ak assainissement ci gàmmu gi ndax li ñu tënkoon ñu ngi koy def wala déeg fan lañ ci toll ak aussi Serigne si laaj leen aussi ndax am nañu yeneen Euh, besoin wala yeneen euh, soxla yoo xam ne yi moom lañuy wax donc ñëw nañu sëriñ bi fii rendre ko compte dañ ko def tamit ci yeneen kër yëpp euh, te gis nañ ne daal li nga xam ne moom la ñu waxoon ne dañ koy def ci mbirum ndox ak assainissement ñu ñu ngi tegu ci yoon pour ñu pour ñu pour ñu def ko am na ci loo xam ne lii def nañ ko am na loo xam ne lii ñi ngi koy liggéey fi mu nekk nii te balaa gàmmu gi incha allah dana dana pare. robinet yi ci mbedd yi ñoom ñi ngi fii par exemple ñi ngi laajte woon ñaar téeméer. ñaar téeméer yi ñu ngi koy defar fi mu nekk nii lu mat téeméer ak euh, juróom fukk ak ñeent defe naa démb euh, installé woon nañ ko li ci des ñu ngi koy installé li ñu laajte woon ci camion yi nga xam ne ñooy vider fosse yi ci kër yi loolu tamit lim bi ñu ci laajte woon mooy fukk ak juróom yooyu yëpp ñu ngi commencé di liggéey euh, am na aussi ay branchements sociaux dañ ciy profité aussi pour def ay branchements sociaux ay kër yoo xam ne yi dañ leen di indil ndox loolu ñaat ñeenti téeméer lañ ci lañ ci laajoon ñeenti téeméer yi dossiers yi nga xam ne yëpp mat nañu danañ ko def balaa gàmmu gi parce que loolu dafa laaj dossier bi mat nit ki indi photocopie carte d'identité indi kayitu këram indi yëpp pour ñu fay euh, ñaari junni ak lu topp pour ñu defal ko ko yooyu yëpp daal liggéey boobu mu ngi dox fi mu nekk nii.